mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen a ngi janoo ak télévision bu mag bi di Al Moukhtar TV muy télévision bi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu diine rek moo ko tax a muy Al Moukhtar nga xam ne bokk na ci turu yonent bi alayhi salaatu wasalaam Al Moukhtar bi ki ñu tànn. ni ñu tànnee yonent bi alayhi salaatu salaam mu doon almuxtaar la ñu bëgg ñu doon tànneef ci biir liggéey bi muy fës yéene mbooleem loo xam ni liggéey bu sell la boo xam ni dafa jëm ci wàllu diine almuxtaar yi dañuy fës yéene ànd ak yéen ca loolu di leen ko liggéeyal ba mu rafet di leen ko tegal ci télévision bi ngeen di ko seetaan nañu bokk waaj nag am na lu xew muy Ila Nimzaat bientôt ñu dem ko rétanisaat nga xam mbooleem loo xam ne sii rek diina ngay dund wala lislaam di tariqa yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi nekk fii dañuy waaj am na àndandoo xaadir yi dem nimsaat nimsaat nag jot na incha allah fas yéene nañu Al dana ñu jot ak seeni matukaay yu mat sëkk fas yéene li tàmbalee ci yoon wi ba keroog ñi ak biir nimsaat mbooleem la fa xew ba ca ku tedd ka fa mu tëdd di Cheikh Sadou nga xam ne moo jël tëdd fu tedd foofee di Nimzaat rawatina nag barabam bu sell ba di Salihina ñu fas yéene mbooleem taalibe fa daje di ñëw ngir lislaam ñu fas yéene nag Al Moukhtar TV danañ fa dugg wan leen xew-xew yi fa am mboolem li nga xam ne waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ni itam boo ñëwee Nimzaat sa xel dem ci madinatul munawara ndax dëkk la boo xam ni du dëkku naataange dé wayé dëkku barké la ndax liko waral moy Cheikh na Cheikh sabbu dafa bayyi fu né dem ba ci àll bi mu sam fa mam bu tedd ba liggéeyal l'islam bi mu duggé Sénégal nag gis ngeen né lepp bawan ndax fenn fu nekk samp na fa mbeur mbeur mu nak di gaydé kon lolu mo waral nag bu korite jotté nag khadir yi nga xamné dañoo nekk Sénégal ñepp dañuy dal di nag wuti zat ngir xéewal yi nga xamné Cheikh na Cheikh sabbu indi nako Sénégal kon nañ ko bokk waajal Al Moukhtar TV nak liñ ci bëgg moy mbooleem ruqee ruqaat yi la fa nekk lépp dinañ leen ko wan incha allahu yéen ñi nga xam ne yéen internet bi di seetaan nag télévision bi na ngeen bokk waaj te nag ñu ngi leen digal plateforme baa ngi noonu na ngeen nag abonné bés cloche bi nga xam ne vraiment loolu mooy gën a sellal liggéey bi gën ko rafetal kon ñu ngi leen ciy xaar Al Moukhtar TV ca kanam ilaa